bismillah maa ngi sant yàlla mu borom ba màgg ba kawe ba tedd ba baax bi maa ngi nooyu ñëpp nooyu ñi fi teew Они ты... Они... a ngeen ñi teew jiital si nooyoo gi chef de village Alsane Dir nooyu itam irimaan yi nekk si dëkk bi si yéeni géej yëpp maa ngi nooyu la baalu ak sëriñ Lo mii ñu làng li ñu làng nii si bunt këram nga baalu ak ba baax ndax boobu ba léegi toogaay bi léegi mu yàgg kilifa la te yi ñoo def xaw na ànd coow tuuti te ñaan mu baal ñu àq waaye defunu len, la dul nekk ci itte yaa xamante ne dañu jàpp ne la mën a indi njariñ la mën a di far dëkk bi la mu baal nu a koñ bi ndax itam jotaay bi mu ñaax ci yëngu-yëngu yi ak tëgg mi ak yeneen ci turu coalition bi nu bokk ci turu mësoo gi ci turu Jamil ci turu nun ñi ànd ci coalition bi yëpp Ablaye Diouf maa ngi gërëm i la sant waa Jalaaw ñëpp fii ci Yéni Géej gërëm leen ndax itam mel ni lii nu waroon def nanu ko waaye itam nuru na ne yéen itam lii leen waroon def neen ko ko defee nu gërëm leen ci loolu seen taxawaay bi yéen taxaw àddina moo mel noonu la mitti yàggul yëngatu bi xaw naa ami fan waaye daanaka feet gi rek moo si des ba subaa dem yeeni kaw ba soobee yàlla in feetu alors bi ma leen gërëmee yéen ñëpp dama wax ji tey du gudd tool du gudd lool bet genn jenn wax rek la ma wax tey wax ji du gudd lool tey bi ma ba ma laa wax loolu defe naa li ma wax dégg neen ko gërëm na ma leen sant leen ba baax léegi xam nga liinu nu war si yéen yee si seeni gis-gis da si bokka jamono yii yëpp din ma waxtaan ma la wax ba nungu ko tafu seeni xel ak nit baala bañ ka ka tafu daa kaa wax mëgal sa poos tey daanaka li noo def jéex na ma bëggoon yéen ràññee ne yéen ràññee bi mu si doonee ba léegi bi noo oote ba léegi léegi mu mat fukki at fukki fan ak nangam kenn gisul benn yoon sunuy jotaay kenn gisul kenn ka solab tëni nun jëndalunu kenn ab tëni baa demee ma kër am na tiset ya fa nekk gunuy laaj na ma ko ay yoon yoon dama wax ne du ñu jox kenn benn tiset tànk li ñuy def jeexul jëndaluñu kenn benn benn tëni pour benn woote bu ñu woote si Jalaaw lii ñu jënd piis pour suñu feet suba la waaye diggante bi diggante bi bu fekkonte ne ay njublang la aki tappale lii ñu jënd si piis manoon na ma see jëndal jël lu mat juróomi téeméeri piis dëkk bu ñuy dem ñu tànn téeméer si jigéen ñi foofu jox leen ko ne leen ñaw leen ko sol leen ko bu ngeen ken mbooloo mi gën a yaa maloon nanu loolu defuñu ko fii kenn solu fi piis ñu dem njangal kenn solu dem di tax kenn solu fi piis ñii toog fii bi ñu fi toogeeg léegi ñii fii fii maas mbeng nga fi am genn fii amu fi genn carte ñii soli piis in la dem kër maas si li ma jàpp ñu bari foofu noonu ñun la ñuy woteel bu soobee yàlla gis nga maas yi ñuy jox ay projet takk leen jox leen ay projet yeewu leen ba bu ñu leen woowee trois heures trois heures war leen a fekk kër góor gi siis am na ña nga xamante ne bañ seen sutura xawee ko moo leen di yobbu foofu mais ñun yaakaar nañ ne si ñoom am na si ña nga xamante ne ñun lañuy ñuy watal ma ne fii ñu toog fii nii fii gëw ma ne ñaari carte buñ ko doon seet ña xanaa ñaar ñu ñu ñu ñu waa Kër Maas Mbeng yebal lay ñu ñëw di seetaan se mais bu dul loolu du ñu xaar a duun fii de

Lalu la affaire bi du yomb maintenant loolu dama ko doon wax pour yéen pour ngeen bàyyi xel ne waa ma ne ka am yaakaar mënu noo am yaakaar mu ngoog man kañ am yaakaar ren ba soobee yàlla ma borom ba baax bi am benn affaire laa waxoon ne moom laay wax fii tey xam nga fii yéeni géej la te yéeni géej moo di yéeni géej am na na nga xamante ne manu ma ne jëfee manu ma ne waxe amuma droit bi par contre ma ni néew na néew ci dëkk bi bunta kër bu ma fëggul dem fa néew na am na nag maa ngi fàttaleeku tout au moins kër Baye Idda fële kër Yungur keroog bi ma fa bëggee dem keroog la wax ñu ne doomi jigal dafa gaañu ba léegi demaguma fa mais yoon nee naa am na ay benn benn kër ya nga xamante ne si dëkk bi dugguma fa te ñooñu noonu maa ngi waxaat fii ne nañu yëg ne dug ñàkk yëg dug ñàkk itte te ñoom wóor na leen waaye ak nit la ma lépp mënu matale léegi li ma doon wax mooy gis nga li may wax si dëkk bi fii di wax ne nanu fexey nu aar dëkk bi in tekk ci njub yërëm jigéen ñi dimbali gone yi ma ne lii maa wax li ci bees bareyul xanaa nit ñi ñoo gaaw a rek wala amuñu seetlu waaye ma ne li ma wax Baye Afa naka fi oote Lima wax nii ne nanu aar dëkk bi Mor Gueye Ngom ak jëkk wax ne banu wa banu banu amee fulla nanu aar jalaaw in dok jam ñaaja in jël waaye ñi ñi dëkk fa nu mën jalaaw aar jalaaw yàgg na fi dëkk bi mag ña mag am pas-pas am ñoo fi andiw fi aar jalaaw ma ne aar jalaaw si la Amad Diagne dox sekk Amad Diagne sekk si la dox ba xëy dee aar dëkk bi ma ne lii maa wax nii li ma wax du li ma wax du ngóora li ma wax du la bees xanaa keñin danaan ndono la te nag deret dax foor ba fekkente ne doon na ma Amad Diagne i doon na Babou Kër Ndiir i doon na Mor Ngom i doon na Alsaan Ndiaye ma ne i mën a wax nan aar dëkk bi dama wax ma ni képp ka mag ka baax si yéen fii lenn de laa ma ëppale daa ma ëpp daa ma ëpp wërsëg mais pour ëpp ma fulla indi ak nit ka baax si jalaaw teg na fii ab tànkam ba jàlla ma gis ka ma teg fa ma bët te duma fa teg ma tànk déedéet li fi mag ñi doon bañ la ma bañ lii fi mag ñi nungu woon bëgg ko si dëkk bi si loolu képp la ma nekk ku fi tooñ na balma. Kama ka ma fi wax laa xamante la la naqadi la baal daara itteelu ma la dul la jëmale dëkk bi kanam aar ka di far ka wallaa lazimal karim daara ikkatim ma ne ma ne li ma wax nii fii ba fekkee am na lenn la si kooj laa xamante ne si ma bopp la dama nit ñi seede loolu ma ne tey la noo tëj fii nu toog fii tey la noo tëj fa nekk dem nanu fa fa nekk yàlla ma borom ba baax bi ba màgg bi ba kawe bi seedeel na ma ka ne amul benn yoon ba ma leen wax ma bopp jëluma benn yoon rajo bi di la wax ne dimbali na ma fi nit def na ma fi nangam lii maa ko fi def walla lii maa ko fi am benn yoon ma ne li ma wax moo di dëkk bi ñii dinañu si ànd ñii duñu si ànd Muhammad alab sanga ba baax ba sikka nekkul si moom tuuma rombaka bi mu ootee ñépp ooyuñu ka li ma wax ñépp mënuñu kaa dégg waaye ma ne na ma ñépp seedeel ni wallaa lazimal karim bu fekkente ne li may woote si dëkk bi am na si lenn la nga xamante ne lu ñuul la lu ma denc si ma biir ab xol yàlla na ma yàlla rey ba subaa ma bañ a fekk élection yi lenn lenn dara dara dara yëkkatiwu ma lenn taxumaa jog la dul jéem a fexe am bunta ba ma dimbalee may mbokka i fexe may mbokkan ban ñaa dëggaat in ban ñaa yàpp mu li nu amaas néew nu suturaal si nuy boppa suturaal suñuy mbokk fexe ba kenn duñu yab lii rek moo la mobi bu ko defee lii ma fee oote wala lii maa jéem a jël relève bi idi ko oote ma ni jalaaw gii nu dëkk gis fi gis fi ku ma gën a maandu bari na lool bari na lool gis nga guni yële taxaw na le bari na si si ñoom ay guni ya nga xamante ne ñoo ma gën a jàng fuuf buñ doon wër si dëkk bi ñuy seet ñu ne inda seet ka bareyam njàng ka ama xam-xam yàlla xam na ne du ma bokk si ñi war a jiitu buñ doon seet si dëkk bi ñu ne dañuy seet ñu maandu ñu baax ñi ñu jub ñi yàlla xam na ne fi ma toog fii du ma fi toog bari na fi ñu ma fi gën a baax bari na ñi nga xamante ne si biir jalaaw ñoo ma ëpp itte in ëpp mag maandute si dëkk bi téeméeri yoon bari na fi bari na fi ña nga xamante ne ma ne bu doon bëgg dëkk bi képp in la seet kii xamante ne moo gën si dëkk bi war a jiitu bari na ña nga xamante ne ñoo ma jiitu wóor na ma waaye yàlla borom ba màgg bi moo yorob dogalam di ko dogale li ma mën a dogu moo la mën na maa waat si borom ba màgg bi ne ñii yàlla dogal tey ne kenn mënu la fexe be du ñoom ñoo yor dëkk bi ten am si ñoom yaakaar ñi tëkkeb lañu ba dimanche ben watee dineen wateel góor gi wala mas mbeng wala man nun ñi tañii la yàlla dogal ni jombul lay kenn si nun dina jiite dëkk bi waaye nu fi waaye gënunu fee jub waaye nu fe jànga waaye ëpp nu fi maanute si la wóor si wóor waaye li boobu benn tey moo di ne moo di ne bàkkuwuma bàkkuwuma ikkatiwuma ma bopp alab dogal alab dogal ñépp mën nañaa seede ne maa ñu gën a maandu fuuf ñoom ñun ñi tañooñ nun ñitta ñi xamante ne si nun ñitta lan war lan war a tànn nun ñitta ñooñu ñaar yi tuutoo mooy maa ñu ko ëppal wala ñett biir na ma ne maa ñu gën a gëm yàlla téeméer yoon wallaahi ndaxte ndaxte lii tax ma ne lii tax ma ne biir na ma bu ñu tegoon fii kaamil léegi ma waat ma ne nun ñitta ñooñu soxla dëkk bi billaahi maa ñu gën a gëm yàlla parce que gëm yàlla moo la bàyyi xel ne bés penc man dina la àtte te dërëm ba amen dina ko réglé te loolu la ma bàyyam xel ba boobu ba léegi tax ma ne ruus na maa lekk benn fistin ba lewul bon ma ne nun ñii tombe te loolu tombe képp la parce que quand dëkk bi ñeneen man ne kaa yor ña dul ñun ñu nu ëpp ak ngóor fuuf yàlla dogalul loolu waaye ma ne nun ñitta ñi si tombe kenn du naatable si bëgg dëkk bi mu diggante man ak góor gi siis ak maas mbenga kenn du ko naatable man wutuma kër wutuma kër jam ah, wutuma kër géejawaay wutuma kër almadi tooguma ba jekka di wala jekka di soog a ñëw yeen biir na waa Jalaaw ñëpp ñi ànd ak man ak ñi àndul ak man ne maa gën a bëgg yeen maa ko gën a bëgg a Mass Mbengue téeméeri yoon maa gën a bëgg yeen maa ko gën a bëgg góor gi téeméeri yoon ñett laa waxoon ma ni bu fekkee gëm yàlla la ragal naa ne maa leen gën a gëm yàlla parce que du ma sàcc du jël lu ma moomul te xam nga politique moom bu ñu waxantee dëgg politique politique question de confiance la rek bu ma taxawee ma lekkuma fi alali kenn pour tontu ma góor gi siis dafa waroon a def noonu maas mbeng nga def noonu ma ne bi ma ikkatee ma loxo ba léegi wàccew ma ko te beneen loxo fekkuma fa si bëgg dëkk bi si bëgg dëkk bi si bàyyim xel borom ba baax bi ba màgg bi ah itam ah si jigéen nit ñi am pas-pas defe na ma ne nun ñitta ban nu àtte woon si ñitta yi rek ma ne man na noo am yaakaar ma soogi ban nu àttee si ñitta yooyu maintenant loolu la ma bëggoon a wax fii tey yéeni géej dama bëggoon seedal leen ne woo na ma ñépp na ma ñépp dégg ñi fi nekk ak ñi fi nekkul na ma dégg nit ñi la def yoon si ala dogalab yàlla ma borom ba man li ma war mane, ne na ma waa yéeni géej gépp seedal ne bi taxaw jotee taxaw na ma bi wax jotee wax na ma bi jog jotee jog na ma lii ma manoon akas néew ànd na mag gune yi bunte kër bu ne toog naa fa gënuma fee ñàkk fayda ëpp ma fi ak jog la ma doon wax léegi moom am juróom benn weer yàlla nattuñu sax léegi moom am deux semaines Macky ñëw fi ñu teg si seen bët bi may wax nanu aar dëkk bi lii la ñëw la dal sinu kaw du la neex defe naa loolu ñëpp gis na yekk maintenant li ci des ma ni dëkk kenn ka nekk si noonu benn brique nga si am benn brique dangay ñëw nga yëkkati sa brique ñii dañuy taamu bu ñu laa ñëw ñey muul yi ña yor ña jaay ka ñii dinañu sàggan ba ña móol rot si ñay loxo ñeen ñi nag dinañu indiwaale ñuy brique faa ña ko war a indee in teg la ke in tabax dëkk bi la responsabilité ñun ñëpp noo ko bokk defar dëkk bi la yéeni géej dëkk bii di jalaaw moomu mag gënuma fee xejja gënuma fee ay dama war a wax rek dama war a wax ma Papa Alsaan moom ma mu ne ma baa demee jogol bunte laa fa sës moo kaa upp moom la maam moom coom waxoon gis nga gunu yële toog fële si gannaaw heure bii bu leen fekkoon ñu yor li ma yor a kës néew si xaalis am li ma am a kës néew si xaalis lépp lu ma fi bañ dañu koy bañ dafa tombe si man rek ma jog bañ maintenant la sa des ma ne la sa des ma ne lanu yàlla wërsëgal ala borom ba màgg nu fop in nungu ko in nungu ko nag in xam ne loolu moo di nub cër loolu la yàlla dogal ba fekkente ne borom ba màgg bi dogal na ne dëkk bii nii dina nu fexey be séeba yii fi mag ñi taaloon nu xamba ka mu yànja dinañu ko xamba waaye taal sébb bi rek taal sébb bi moo nekkoon nu cër taal nanu ka léegi laa ka boyal yànjal ka du noon foola maa tëjee ma maa ngi am yaakaar i la ñaan yàlla mu borom bu màgg bi di ko ñaan ni nanu may nanu yërëm mu may bee ba samdee si ngoon biriis ba neex ba sedda baa xamante ne ba fi jafeñ la dugg si biir dëkk bi dugg si biir xoli dëkk bi dugg si biir xoli nit ñi bee dalal xel yi wan ñëw yoon lii gën si dëkk bi yàlla na ko ma borom ba baax bi def li gën si gune yi yàlla na ko def am nanu yaakaar bu baax li nu yaakaar moo di ne li nu waroon def nanu ko gune yi dégg na yenu yéeni géej gii maa ngi daaneel samay wax foofu élection yii nii ba soobee yàlla ki la gañe yéeni géej si li nu yaakaar moo la gagné élection yi loolu la nu yaakaar te gu dégg nañu gu si bare si mag ñi dégg nañu li wax li wax ah li noo li nu tax a jóg moo di bi njub bi amam kom. Ar dëkk bi tekk fehe njub bi amam kom. ñi ëpp si guni nuy dëkk bi benaa ndex nun si loolu maa ngi leen la invité ñaari fan yi des yéen jog kenn ka nekk si yéen am na ñaari guni dama ñaa bañ a tudd ba ma tuddee ñëw tur jombul lay ñey yaay ña mer biig am na benn xale bu ma yaayam fekk kër ga mu ne ma amet ah, àndu ma woon aw waaye ma doom diw la tudd ni na ba fekkee man bëgg na maa def laa xamante ne daka ne na ma la faral ma bëggoonu jox ma piis parce que bu wate bi ñëwee yow watal Mariama Ndiaye mii nii am na ay dëkkandoom kenn si ay dëkkandoom ka nga xamante masula forax nun doom ji wax na yaayam ay yoonu yoonu yoon dégg naa faa ñu mujjee mu nekk doo faral ndiir léegi li ma bëggoon moo la man u faral ma man man u faral ma pour man ma avenir man u faral ma parce que man laa yóbbu woon ma jàngi ji i xam laa xamul man la ma bëgg man man man la ma bëgg u jox ma sa karta baa ma ko joxee ba fekkee may naa ma ka watel ka ndiir parce que maa la gën a xam liin la def yaay ji nekk ba soobee yàlla din ma watel amet loolu moo tax loolu moo tax nu gëm ne ba soobe yàlla ba soobee yàlla ma borom ba màgg ba kawee ba baax ba tedd bi li noo def dina sutti ba fekkente ne sotti na lenn képp parce que fii du ma fi ñëwaat lenn képp la ma leen bëggoon a dénkaan dénku moo la ne nun noo bokk li noo def nii du fëccoo du noonoo du dara ala jéem a di far rek dañu fexe benn ànd si ak dal in ànd si am xel xam ne kenn gañewul lu dul yéeni géej bu fekkente ne yàlla def na lu dul jalaaw plutôt ba fekkee borom bu baax bi def na benn nu gañe na nu gañee sim xel in gañee si oyof in gañee si dignité d'accord bañ a ñaawal kenn bañ a tëkku kenn bañ a ñooru kenn parce que dëkk bi itam bu ñu ko yoroon ñii nu àndal tey ah ñii nu àndalul woon mënuñu ñu fee génne nun ñëpp jalaaw ay waa jalaaw lanu lii la ma la oo maintenant li ma daanele moo la mo dama ne woon bon lolou sax du politique par contre elage Ousmane la maa may la wax xamna xamna xam défaré ba demi-finale nous dor gars après une dimanche la no dem finale légui kala dem finale daxaal def regroupement du deug légui regroupement bi yéni kaw la mané ne fi jalaaw fii yàlla dogal lolou fi mu na du fi xëccoo ak nun mobilisation baa nu duggee baa nu duggee mairie ba léegi la la nit ñi ragal a langa mairie léegi li ma bëggoon ñaan moo di dama bëggoon bu subaa bu subaa ñëpp yëg ne xam nga temps yi yëpp ñu ngi tase mais mobiliser wu ñu pour waneen mbooloo wax na maa yoon ma ne danoo nëbbal li noo def suba nag dama bëggoon li yéen am lépp bi du ngi jàkkaarloo sali li yéen am lépp waa waa bokk gis-gis ñële li yéen am lépp génn leen suba la ma wax ma ne ah suba suba suba ayta yéen a ngi maa dégg ah ah maas ak ñooñu noonu yo ma yobante bi ba dara sedda la ma wax ba dara sedda ba suba. non ba mu sedd na tànga sedd baaxul ba subaa la mu wax mësoo gi mu ne mu ne na sedd ma ne ka sedd baaxul ba subaa na tàng jir fu 4 jotee ngaru ba xaw ma ñii la ani ñoom la mu gàtt gàtt gàtt mille chaises bëgg naa ñu def ko foofu bu subaa waa defe naa defe naa ñëpp dégg nañu ma invité na ma yéen yéen a ngi maa filmé ma ba suba waa Jalaaw ñépp invité na ma leen ngaru bi ba dara sedd